asalaamualeykum. mbokki Sénégal mbokki bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant. wallaahi ngeen ñëwati fii seen émission allo 12. télé sénégal point com. fa sa naay Samba waaju baax ñu nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. ñu commencé ñu dem ci téléphone bi. waaw téléphone bi wallaahi gars yi 810 90 90 allo 12 télé sénégal point com. Ah, allo allo allo allo 12 la. waaw. man la Famara Bodian. Faala. Famara Bodian. ah waaw man dama seetaan émission boobu télé boobu 2S. waaw 2S TV. waaw mais ñoom léegi dañu def film yoo xam ne film yi comme affaire tubaab yooyu. waaw di fonante di film bi di def yooyu bon yooyu. waaw Sénégal kañ lay commencé def yooyu. yow yaa ko si sax fii ci 2STV. waaw benn benn film la bu ñu waa bu ñu waa kii waaye Live Line Live Line xaw ma. Live Lifeline. ah Lifeline Lifeline Lifeline Lifeline xam nañ ko. waaw boobu boobu ñoom dañuy fonante foofu di def ay yu kenn xamul. laay ñëw Sénégal xamuñu woon yooyu. wallaay wallaay wallaay wax nga ko Sénégal day def film waaye film yi du am yooyu de waaye. ñoom dañuy def yooyu yëpp. dañuy fonante di def yooyu yëpp. ah waaye yow ñun Sénégal warul tax loolu waay. lay ñaaw na ñaaw na ah ñun ay doomu jullit la. ah vraiment vraiment boobu daal moom boobu rafetul boobu rafetul dara dara dara. dëgg la dëgg la ah. waaw ah, wax leen si boobu waay. incha allah jërëjëf waay jërëjëf looloo ñu fi teg ñun ku fi def ñaaw ñu wax ko ku fi wax ñaaw ñu wax ko waaw looloo ñu fi teg waaw waaw sant nañ la gërëm nañ la yow ko ah, jam allo allo allo waaw waaw man ne ñoom dégg naa Sénégal yi nekk États-Unis waaw ñoom ñoo koy def uh-huh. Sénégalais ay Sénégalais lañ nekk fii ñoom la. Amérique la ñu nekk Amérique loolu kay dégg naa ko. Ah, ñoom kay def live line boobu live line. ko ñaan kay la sa xol set. waaw ñoom film bi daal yu bon rek dañuy fóonante di raayante di yu yu ne la ñuy def. dëgg la dëgg la bëgg topp topp ah, rek ba dàq rek bëgg rek ba dàq. dëgg la Badiane dëgg la Badiane. ah waay ñaaw na waay. dinañ ci développé léegi bu soobee yàlla. ah kay jërëjëf jërëjëf Badiane jërëjëf Faye jërëjëf Badiane Badiane mi li mu wax dëgg la di wax dëggal lu toll sénégalais waaw nga dem ba bitim réew ah, bàyyi sa diine sa cosaan teg leen fële ah. ne da roy tubaab yi ci lu bon tubaab yi sax ngi roy suñu lu baax yow ngay tourné leen roy ci lu bon ana film ak fóonante ana film ak maccante ana film ak daaf taati leen di wane awra en tant que war a wane exemple leer wane war ay exemple yu baax tubaab yi ne leen diine ju baax la diine ji si luy si la njor nga dem fay fóonante di maccante ci mbedd tubaab bi dafa mën a jaay maccante tubaab bi jaay ko diine ak lislaam waaw dëgg dëgg mu saf ko dëgg dëgg bu dee maccante rek waaw tubaab ñoom moom moo ko mooy seen culture ñoom def yo fi nit am fóonante boobu doomeeraam la ki yor film bu xam ko yor producteur boobu waaw dëgg a ngi noonu sowaas la imbécile bu mag a ngi noonu doon sowaas la bande salon yaa ña koy def waaw ndax bande salon weesu ay sénégalais ngeen jógee fii ci seenum réew amoon lu ngeen fay def loolu di foonante di seen film di foonanteeka raayanteeka laalan fa ñaaw xam nga ne Bodian mi li muy naqaru naqaru nag ndax nag Bodian mën na am jabootam ay ne fii ah wallaay wallaay te télé télé la télé télé la xam nga internet sax mën nañoo comprendre waaye télé moo la fekk sa kër wallaay wallaay da ngay zappe yem ci sa doom di zappe di ci yem wallaahi xam nga nga taw sax njaboot ñaaw na gis ay propre sénégalais di ay sénégalais ne yow hmm. ñuy foonanteeka xaj la waaye te produit woo baax. jigéen ñaa ñàkk fay Alaaji Njaay naa seet de Alaaji Njaay est-ce que heure bi ñu koy teg. du fekk Alaaji Njaay ah, bu julli géer tëdd xam naa ko buy julli géer di tëdd du ko fekke. dañ koy ko def ci ginnaaw. waaye Sénégal bi waaye fii moom yaakaar naa ne ak lu ñu mën def ci sa ginnaaw. waaw mu waru loo xew moom rafetul moom loolu moom dëgg la waaye nag naa mënoo nekk sénégalais waaw sa baay di sénégalais ngay doomu jullit dem bitim réew xaalis di jënd sa ngor ak ah. sa dignité ak ak yow daraja ji nga am. Sénégalais loolu daa yomb Sénégalais fóonal kii ñu fay la nga naan ko nii. man ñaari mala loolu saraf nday jooju jigéen. yow acteur principal bi yaay doomi xaram dëgg. figurant yi sax moom mën naa leen jégal moom ñu sanday ndànk-ndànk waaye principal acteur bi moom doomee raam a ngi noonu waaw ñu sa day jël doomee raam a ngi noonu bandi salon imbécile la souvent xaj la xaj dëgg nga waaw ah. sëriñ neex. sëriñ neex. waaw sëriñ neex da leen koy wax. ah war ngaa neex de kon. ata ba sëriñ neex da war naa neex. neex trop sax. wallaay. foo ñu woowee sëriñ neex. ñu ngi sant bu baax ñu ah dañ di béykat lu bëree bëri demul. dëgg la dëgg la neex. waaw ñu ne waa waa Brésil dañ leen di béykat waaw waaw di tàggal rek wallaay yéen kay. waaw ñoo ngi bëgg lu bare bare. dëgg waaye baax moom damay laaj moom. ndeysaan mm, walaay ndeysaan. walaay ak dëgg. waaw seen émission yi moom du koy baax mel ni garaaw. walaay waaj <laughs> dama agressif nag. noonu laa mm-hmm. mel de partout. Ah, ah, nag da ngaa waaw tasaroos waaw loolu am na. am solo ngeen di def. neex jërëjëf waay. waaw jëf neex. am ah. waaw chaque dimanche na xam naa kon dañ gën a dégg yàlla waaw waaw waaw nuyu ma Brésil yëpp nuyu ñëpp waaye jërëjëf sa neex ñu ngi kontaan Serigne Neex moom nga xamante ni ma nga ba Brésil ñu ngi kontaan ci moom lool waaw waaw nuyu rek nuyu ñëpp rek di sant ñëpp di nuyu euh, sama gaay ñoom ñëpp maa ngi nuyu baax man Simon maa ngi seetaan télésénégal point com.